am nga musicien comme temps yi dégg nga Barça Royal bi dox ci diggante Papa Youssou euh, wali sek Sidi Diop. xoola maa ngi gis benn kiw wali sax ñu ma ko envoyé bi ko di jël si oto boobu noonu. Mm-hmm. Euh, wali wax na leen lim leen wax wali gis ndur jarbaat ak nijaay la. Mm-hmm. nit ñee si nekk di wax. Mm-hmm. man benn message rek laay lancé te Sidi job laa koy lancé. sama frère la. xëy na xamuma. mais géejawaay ñoo ko bokkandoo bu kenn dugg si digganteem ak sek. Seck waaw xalé la dafa nekk ci yoon di dem xalé hmm. la dafa nekk ci yoon di dem hmm. gis nga problème yi moom bi may dogo feñ bi may dogo ful amon na problème yi man ak sama nijaay hmm. dem ba xajalé am ci day dug guéw ndep tok né ma dug guéw ndep tok né mu génn bak ma génn bàkku bobu nit ñang may gonfale ak mom mais bima ma ba xamné nit ñi dañ may gonfale ki nga xamné moy sama kilifa waaw kay bi ma demee ba xam ne dañ may gonfale ak moom dama reculé wu gis nga Lamine d'enfant ki nga xam ne moom war a indil samay fauteuil fii Lamine mu ngi mu ngi canal 4 mm-hmm. moom njëkk a woo dal sama kaw man nangul ko li wax keneen woo ma dalaat sama kaw mm-hmm. dem fekk sama nijaay ram baalu ko jéggalu ko mm-hmm. ne ko delluwaat naa sama njébbal si yow baaluwaat ko xam ne nit ñi bëgguñu lu dul yàq te Sidi foofu lañ ko jëmale moog waali te du yoon Sidi xale la dafa nekk si yoon di dem kon nañ ko bàyyi mu dem ñi koy gonfale di ko wax loolu lu ñu ko jàmm tey bis bu demoon ba amatul. ci la ñuy xam ne ñooñu bëggaluñu ko jàmm. <laughs> Wally Seck loo koy wax moom. ah Wally moom. së ñëpp nañ ni moo tee musique gu Sénégal. ah Wally sëtub lëg daawur la. lëg daawur ay maamam. Hmm. Ah, lëg daawur. Hmm. maamu Wally Seck la. ah lëg la Wally Seck famille dañoo bokk ci lëg daawur de. Hmm. lu baax laa la te yàlla xam na ni Wally nit ku baax la nitu social la man nag mosumaa defal. mais mu may way. téléphone rek lañ mës a déggante mu nekk euh, comment dire studio. Mm. boobu maa ngi noor Foire. Mm. mu ne ma su paree naa la rappeler après déggante waatuñu. Mm. Pape Diouf sax dañ doon déggante téléphone. mais man maa bëggut a nit ñu siiw ñi. di fréquenté ak ñoom dañuy mel dafa am looy wut. mais nag ku ma si soxla dinaa lijjanti sa numéro dinaa la jot dinaa wax ak yow. waaw Pape Diouf dañ doon déggante Wally de même mais ñoom ñëpp dama leen ñaanal jàmm. ah parce que milieu bi ñu ma nekk Wali ñaata son la ma way bimu mu ci fi way na ma mhm. kon alhamdullilah kon sante yalla ñu ngi sante lepp jaar si loxo mbay ci rek. Mhm. mais idi fi mu toll way kat yi nga xamanteni ci réew mi yeb ban son musique nga upp loy deglu di cons. ah wax deug yalla ak yonent man duma fen man wali sek lay deglu damay deglu ay pap ju mais wali sek sama telephone wali sek, cion sek ci upp mhm. ñi may andal sax xam nañ ko. cion ak wali ku dàq ah mais mais loolu du affiche booy bi xam na ni Papa Diaga <laughs> euh, loolu du affiche man dafa am benn son coon boo xam ne même lu may su liggéey di dugg stade moom laay déglu. non loolu loolu garaawul loolu day ah mooy son bi mu way Nelson Mandela abataay. son boobu dama moom dama koy déglu. Hmm. même su may dugg su ma defee samay déglu sama lu ma war a déglu ba moom laay duggee stade lu moom laa ëpp lu may déglu parce que dafa am fu may yóbbu su ma koy déglu. ah mooy son bi mu way Nelson Mandela bi. Mm. ah mais loolu ñun ay nit lañ tamit. Mm. fii ku la wax ni doo déglu musique da ngay wax lu la neex rek ñëpp a koy déglu. waaw mm. ah, kay kon alhamdulilah.